ginnaaw loolu yéesu ak jege woon nañu yerusalem ba agsi dëkku betfage ci wetu tund noonu yéesu yebal ñaari taalibe ne leen demleen ci dëkk bi ci seen kanam bu ngeen àggee dingeen gis mbaam mu ñu yeew ak cumburam yiwi leen leen indil ma leen te bu leen kenn waxee dara ngeen ne ko borom bi da leen a soxla kon te saa sa dina leen bàyyi ñu dem yeesu def na noonu ngir lañu waxoon jaarale ko ci yonent am bi mu naan waxal waa siyon seen buur a ngi ñëw ci yéen ku lawet la te war mbaam sëf dig cumbur doomu mbaam noonu taaliba yee dem def loolu leen yéesu sant ñu indi mbaam ma moom ak cumbur ga lal ci seeni yére yéesu toog ca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 yeesu tontu leen ne waaw dégg naa ko ndax musuleen a jàng lii ci mbind mi ci gémmiñu perantal ak ñuy nàmp sàkkal nga sa bopp ay cant bi yeesu waxee loolu mu bàyyi leen génn dëkk ba jëm betani fanaan fa ci suba teel yeesu dellusi ca dëkk ba mu xiif noonu mu seen garabu figg ca yoon wa waaye bi mu fa agsee gisu ca dara lu dul ay xob rekk ci kaw loolu yeesu ne ko dootuloo meññ mukk te saa sa figg ga daldi wow bi nga xamee ni taalibe yi gis nañu loolu ñu waaru naan nan la figg gi daldi wowe ci taxawaay bi noonu yeesu tontu leen ni ci dëgg maa ngi leen koy wax su ngeen gëmee te bañ a werante dingeen def li ma def figg gi rax ca dolli bu ngeen ne tund wale jógal tàbbi ca géej ga dina ko def te lépp lu ngeen laaj ci ñaan bu ngeen ci boolee ngëm dingeen ci jot ginnaaw loolu yeesu dugg ca kër yàlla ga di fa jàngale bi muy jàngale nag sëriñ su mag sa ak njiiti xeet wa ñëw ci moom ne ko yëf yi ngay def ci ban sañ-sañ nga koy defe ku la may boobu sañ-sañ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 taaw bi tontu ko ne maa ngi dem baay waaye demu ca ginnaaw gi baay ba ñëw ca ñaareel ba wax ko noonu mu tontu ko ne bëgguma caa dem waaye ginnaaw loolu xelam soppeeku mu dem ca noonu yéesu laaj leen kan ci ñaari doom yooyu moo def coobareeg baayam ñu ne ñaareel bi kon yeesu ne leen ci dëgg maa ngi leen koy wax juutikat yi ak jigéen ñi mooykat yi ñoo leen di jëkk dugg ci nguuru yàlla aji kawe ji ndaxte yi ñëw na ci yéen ci yoonu njub te gëmu leen ko waaye juutikat yi ak jigéen ñi mooykat yi gëm nañu ko te gannaaw bi ngeen gisee loolu seen xel soppikuwul sax ba ngeen gëm ko Yeesu teg ci ne déglu leen beneen léeb amoon na fi benn boroom kër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 noonu yéesu laaj leen bu boroom tool bi ñëwee nag na muy def baykat yi ñu ne ko dina rey reyin wu ñaaw nit ñu soxor ñooñu batale tool bi yeneen baykat yu koy jox wàllam ci jamonoy meññeef kon Yeesu ne leen xanaa musuleen jàng lii ci mbind yi doju tabaxkat yi sànni mujj na di doju koñ ci borom bi la loolu jóge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 ndaxte ñépp teg nañu ko ab yonent